Oy, eh. Balla Gaye génn ci oto bi Balla Gaye génn ci oto bi Balla Gaye génn mu ngi wax gaay yi ne leen loolu wàcc li nga xamante ne moom mooy oto bi wàcc na ngir gérer li nga xam mooy situation bi jaara kaay rek jàpp. muy dugaat muy dugaat bi nga xam moom wëz. wëz wëz wëz. wëz wëz. dafa jàpp. mel ne mu ngi def li nga xamante ni mooy débat démb li nga xamante ni lamb la dugaat na ci oto bi am na luñ ko jox mu daal koy laal laal ko ci bopp bi waaw alkaati bi nee na gaa yi dellu nee na képp koo xam ne bokkoo ci bis bi rek na nga daal di dellu ñu moytu ko oto bi mën naa jékki-jékki rek daw oto bi mën na jékki-jékki rek daw leen ko bàyyi xel bala wàcc ci oto bi laa ilaha illallah yéeg na ca kaw oto ba baba bala wàcc na yëg ci nga xam ne mooy oto bi drapeau Guédiawaye bi jublu drapeau Guédiawaye bi jublu Balla Gaye téye na drapeau Guédiawaye bi tàllal na loxo yi Balla Gaye tàllal na loxo bi

wala 3-0 la def ñaar Balla Gaye nee na nan dal

ñu ngi waaj a waaye Balla Gaye jàpp na ci loxo ki a xamante ni moom moo doon xeex Balla Gaye demel jàmm la woote lii baaxul ci li nga xam ne yéen a koy am en direct avec ki nga xamante ni mooy le roi l'empereur Balla Gaye te jege waay. Balla Gaye na maa ngi koy sama si wàcc Mongol Jackson dina xamante ni moom mooy ca biir enceinte ba waaw.

Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal.